Bajam Bungam Bajam Bungam Sénégal pure na Nanga def Sénégal ba jàmm nga am. su ko. ndalay bari kala sargal na ma liin. si sa biir nga def la jeunesse ba jàmm ngeen. suñu carte moo ko moom. andi yaay andi baay ba jàmm rek. parti de l'unité. chers frères et sœurs, chers militants, chers camarades, je tiens tout d'abord à adresser mes sincères salutations à l'endroit du président du Parti de l'Unité et du Rassemblement, son Éminence Mohamed Mohamed Moustapha Si. Mes salutations vont aussi à l'endroit du directoire, mais aussi, surtout, à cette belle assemblée composée d'hommes et de femmes de valeur. Je tiens aussi à remercier nos pertinents séminaristes qui nous ont offert un cours magistral. Je les félicite, mais surtout, je les encourage à être informés, c'est être libre. Je remercie aussi l'ensemble de l'assistance venue nous accompagner dans cette aventure passionnante qui est la quête du savoir, car après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un peuple, disait Danton. Mes remerciements vont également à l'endroit de l'école du parti, représentée par M. Aziz Ndiaye, qui nous a offert cette belle occasion d'échange. Une formation pour qui Pourquoi Notre devoir en tant que responsable, c'est de faire de nos militants des acteurs de développement bien outillés et conscients. La citoyenneté évolue et se construit tout au long de la vie. La formation ne s'avale pas. Elle se bâtit individuellement et collectivement par l'étude, mais aussi par l'action. Notre objectif est de donner aux citoyens les moyens intellectuels, techniques, moraux et idéologiques permettant d'acquérir une pleine conscience citoyenne, démocratique et solidaire. Nous souhaitons éradiquer cette race de politiciens, politicards, qui transforment l'hémicycle en champ de bataille, en arène, cette race de petits hommes qui transforment l'espace politique en zoo parce ignorent et ignorant. Et comme disait Skoll, en politique, on ne discute plus, mais on insulte. Et moi, j'irai plus loin en disant qu'en politique, on se crêpe le chignon. Nous voulons éradiquer cette manière de faire la politique, qui est de se servir au lieu de servir. Je voudrais en ce jour lancer un appel à mes frères et sœurs, surtout Wakamwa. Wakamois et Wakamoises. Wakam est un trésor, une zone stratégique habitée par des guerriers, une zone mystique habitée par des sages, un village où il fait agréable de vivre, mais aussi de mourir. Mais aujourd'hui, Wakam va mal. Wakam souffre. Wakam pleure. Notre beau village est déchiqueté, agonisant et en désordre. Un désordre qui se lit partout, dans la rue, les hôpitaux, les écoles et les marchés. Wakam ne peut pas être dirigé dans la discorde, le tiraillement et la haine. Wakam dit non à cette politique injuste, exclusivement menée au profit des privilégiés que mène le système en place. Wakam a besoin de retrouver ses valeurs et son identité. Nous voulons un Wakam qui s'inscrit dans une logique d'unification, comme l'a dit Madame la Ministre. Une logique d'unification de toutes les couches sociales et de rassemblement de toutes les forces vives. Il est temps, chers frères et sœurs, il est grand temps vraiment que cela change. Il est grand temps que sonne l'heure de la rupture. Nous souhaitons rendre à Wakam sa force d'antan, sa sérénité, son unité. Je veux redonner à la jeunesse le goût de la vie et la perspective d'un destin en commun. Il est temps qu'ensemble, nous puissions bâtir un Wakam nouveau et prospère. Il est temps qu'ensemble, nous puissions créer un cadre d'échange de partage, de dialogue pour l'intérêt de ce village qui nous est si cher. kon loolu la ñu tënk noonu rek di beral nuyoo comme ni ñu ko waxee sànq rek le président du parti di beral nuyoo directoire bi ahitam la fédération de Dakar ndax am nañ fi ay représentants di beral nuyoo kii sos yëf yi mooy ki yore l'école du parti Aziz xam naa mu ngi toog si gannaaw de remercier sunu séminaristes aka Aboubacar Ndiour ñom lañ fi di remercier Soxna Awa ah le président du séance mom moy SGO Médina donc di sunu mbokk fi nek Nous ñu représenter parti tout sank madame la ministre tout naa PDS sunu mbokk ñom ñoo fi 15 heures fi leen ah, sama Moussa ah, parti fi vraiment di leen jaajëfal di jégalu ndax euh, lii dafa nekk loo xamante ni bii dafa ñu ñor ndax damay wax ne formation la ñu woote mais dañ ko wax mu nekk benn xeer bu jëm ñaari picc formation la mais itam dañu ne dañuy lancer appel appel à tous les acteurs sociaux yi nga xamante ni bii nekk nañ fi leader yi nga xam ne ñoo nee Wakaam parce que dañuy wax ne wakam macha allah potentiel bi fi nekk kenn xamul nu mu toll Wakaam ay homme de valeur ak des femmes de valeur rek ñoo fi ne.

bari na koy tudd nga foog ne xëy na jaarul wakaam mais fii la jaar même ba si bari na tubaab yoo xam ne dañ naan teel dëkkale nekk mu ne wakaam laa jaar ndax base yeex yeneen kii ne pour wane ne wakaam képp ku ne boo sañoon fii ngay yeewoo ndax li fi yàlla def mais lan moo tax ñun ñu yore wakaam te ñu wax ne ñun ñëpp ko seen page Facebook am di nga gis mu ne bind ne wakaam moo ma ñor wakaam sama dëkk man wakaam laa dëkk di ko tiitaroo te pourtant ñun ñuy dëkkee wakaam xam nañ ne wakaam demul parce que man fii laa juddoo fila magge màgge yewo me yeewoo mais man fu dem ah wakam fo laal day metti wakam koñ bo jaar mu ngi bucc ni ñi wax egu yaangi mu ngi noonu école ben école d'excellence amatu fi hôpital mom te pourtant bu jëkkoon wakam ku daan feebar da ngay ñama da ngay da ngay ñaan yàlla ñëw ñu faj la wakam te wakam léegi amul ben secteur boo xam ne mu ngi dem léegi nag quel est le problème où est la jeunesse de wakam barke dem la si waxtaan Moussa mu ne ma wakam jeunes yi guddi la génn ndax rus a génn bëccëg parce que liggéeyuñu waaw dëkk boo xam ne yow say jeune liggéeyuñu say jigéen liggéeyuñu fu ñuy jëm fu ñu jëm est-ce que dëkk boobu li ñuy woote ñun ñooy leader Wakam ñun ñooy représente tel parti man maa yore telle association ñu bëri fi lool hmm? ku ne di yëkkati kàddu mais lu tax mënuñu dem lu tax Wakam mënul dem am na loo xam ne man je dis du problème mu maire am na loo xam ne ñun acteurs acteurs yi fi ne di wax ne Wakam ñoo moo ñu ñor ñun ñoo war a seet ban pexe la ñuy def pour def benn say parce que am na loo xamante ne benn nit mën na ko xeex même su fekkee ne maire bi fii de xay na peut-être sawaruñu sax ay mbiram sax ah naka la ngi fay jëlee benn nit mënu ko il faut que ñun ñi leader rek ñu bàyyi suñu intérêt bopp parce que am loo xam ne intérêt général tant que tant que xeexuñu pour loolu duñu dem il faut que ñu teg yenn par parlo yi parce que man akaam yi tey laa ko door a gis xaw ma ko mooy kan xam nga te intéressé wu man xam bi ma ñor si moom man moom laay moom laay xool

mais dematuñu géej parce que géej gi amatul dara léegi loolu dañ koy bàyyi nekk rek ñu nekk seraat yooyu télé yi topp politique politicienne di saagante di xastante di góor gi doon wax ne sëñ Cheikh di wax ne ñun dañu yor njaboot en tout cas waa PUR tàlluñu politique boo xam dañu ne si mbedd di xaste di xuloo campagne at mi yëpp amuñu boobu jot li ñuy oot nit ñi daal mooy daje yu mel nii ñu sottinte xam-xam ma dajee sama mbokk mi fóon ko

loolu mooy yëf yi madame kii la ministre gisee nañ barke démb je pense que noonu la ñuy mën a defaree rek ñuy ànd nekk ay xarit parce que man damay gëm ni am na loo xam ne bu dëggoo si ñun rek je pense que liggéey bi dina yomb ki toog nii sama yaay la yoof la jóge ngir yàlla jàppale ñu si bëccëg awa jéen mi Medina la jóge pourtant bu ko neex mu bañ a ñëw parce que xam-xam bi am na ko ba pare hmm? donc pour wane rek ne il faut que ñu réfléchiraat xoolaat ba xam lan moo ñu tax a jóg est-ce que suñu intérêt la wala suñu intérêt dëkk la wala je pense que la grande question qu'il va falloir que ñu poser wu ko ma nuyuwaal de passage vieux moom karimiste la donc pour wane rek jotaay mo ñëpp a fi <laughs> man sama xarit yi man duma xam sax ban baat lañ bokk des fois parce que li ma yitteel mooy xam-xam bi échange man lu may kii dama koy oo ñu discuter pour wane rek ne tabarkalla yooyu appartenance yi je pense que day tax rek euh, vraiment liggéey bi du dem kon ñoo ngi leen di jaajëfal di jégalu parce que heure bi moo xaw a doy waar Boubacar dafa am dëj moom moo def première partie bi dafa am dëj moo tax mu dem donc daal man tey daal pur li mu def mooy tendre la main à képp koo xam ne bëgg nga Wakaam dem ñu àndandoo ensemble xool naka la ñuy trouver des solutions bu dee dañ soxla pavage ñu ne ban solution lañ am ñuy def ay réunion di def ay rencontre échange ay tey ay débat man je pense que tout ça c'est possible bu dee ni Wakaam rek mooy ñor waxuma nag des intérêts personnels waaw wala naan xaaral rek man su ma kii positionné wala li soxna Awa wax je pense que lolu day ta rek liggéey bi dem donc euh, d'une manière générale ñoo ngi leen di jéggalu donc ñu jaajëfal ñi fi nekk ñëpp euh, liste de présence peut-être amna parti yu mu faté mais parti fi nekk ñoo ngi di remercier sunu mbokk yi jógee yoftum je pense amna fi quelques représentants représentants du parti bu Yoff pur Yoff mu ngi fi di remercier la presse aussi Mourchi TV mi ngi fi ñu ngi leen di jaajëfal ñom sunu ay partenaires lañ di jaajëfal waa desk info si presse bi lañ waa point focal ak waa info 15 ans donc bu dee presse bi ñoo ñoo fi nekkoon donc euh, ñoo ngi remercier mbokk yëpp di jégalu encore ñi ma ko waxee autorité yi fi ne waaw moo xam euh, waa xalifis yi la moo xam PDS la moo xam waa fële karimis yi donc ñoo ngi leen di jégalu di remercier encore le le kii le responsable du parti